Pape Malick Ndour ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bu baax. may fàttali suñu auditeurs yi ni moom mooy directeur général programme des domaines agricoles communautaires muy prog euh, muy PRODAC tey jii euh, monsieur Ndour ñu wax ci li nga xam ne moom mooy euh, li njiitu réew mi wax ca conseil des ministres bu mucc muy ñu def benn évaluation ak mutualisation ay services financier ak non financier muy yenn agence yi nga xam ne ñu ngi koy gis tey nga nekk ci boppu PRODAC donte concerné wu la directement mais say ñooñ noo gisee ci ni mel. waaw man li ma jàpp mooy euh, président Macky Sall waxul ba léegi dissolution waxul fusion loolu war nañ ko euh, préciser. Mhm. pour nit ñi nga xam ne ñu ngi jiitu ñu euh, ko olof di waxe xaw ma paaka ca mbartal yaakaar naa ñu xaw a te ëpp ci li président président mutualisation la wax. Mhm. loolu mën nañ ci ndottee ne. Mhm. dafay jàpp ne ñoom ñooñu ñuy def xaw na méngoo waaye bokkuñu. benn pàcc la boo xam ne dañu ko dénk ñoom ñëpp mooy fexe ba ñoom ñëpp ñu contribuer ci rendre accessible financement notamment pour xale yi mais aussi pour jigéen ñi. Mhm. waaye ku ci nekk ci le am na benn euh, euh, boor boo xam ne moom nga fa taxawee. Mhm. ñaare sax da ngay gis léeg-léeg ñoom seen biir ñu def ay convention yaakaar naa président loolu la gën a bëgg biral ñu xool ñoom ñëpp naka la ñu mën a jàppalante seen biir pour que affaire yi gën a mën a accéléré wu. yaakaar naa loolu moo andi waxtaan bi loolu nekk lu am solo ñun par exemple secteur bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy def. Mm-hmm. président pour def ko barki démb rek moo si mujj signé naa benn convention ak 3PT. Mm-hmm. parce que 3PT dafa am rôle bu muy joué ci formation man aussi ma am rôle bu ma ciy mm-hmm. ci formation notamment dans le domaine agricole. donc ñun ñoo lëkkaloo nañ def benn convention boo xam ne mënuñ ko tuddee mutualisation des efforts je pense que loolu la leen di woo ñu gën ko formaliser gën ko wane gën ko fësal pour l'intérêt euh, des jeunes et des femmes notamment kon bu ma la déggee waaw bu ma la déggee ngay wax ñi ciy njott rationalisation ñi gis ci wax jooju ne dañoo war a gën a euh, serrer euh, li nga xam ne mooy équipe yi kon jarul ñu koy xalaatee noonu ah bon en tout cas jàpp mu ne loolu la mutualisation bi signifié mm-hmm. bon maintenant nag yaakaar naa am na ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a approprié pour mën a liggéey liggéey boobu liggéey boobu su paree dinañu xam ndax xam réellement euh, dañuy def seen relation fonctionnelle la ñuy la ñuy renforcer. Mhm. wala dañuy supprimer dagg fii yóbbu fële wala supprimer ak yooyu. mais njëkk ma ne quand même euh, loolu am ki ñoom ñëpp ku ci nekk am na place bi soo nee fonds yi mhm. soo xoolee fond bi rek yaakaar ne ñoom ñaar benn la ñoom fond moo leen boole. Mhm. waaye lay siis ak lay jib dégg nga. Mhm. donc yaakaar naa yu mel noonu il faut ñu koy préciser mais am nañu confiance quand ci suñu structure yi nga xam ne ñoom ñoo euh, ñoom la président nag wax dénk liggéey boobu. Mhm. bu soobee yàlla ñu def li président santaane. wax ci Prodac bi nga xam ne yaa ngi ko jiite tey jii lan mooy feuille de route am. waaw Prodac nag def naa la ko sànq euh, suñu. Euh, solution yi ñu ci ñetti pàcc la. li mhm. ñu ne problème mu dafa nekk problème bu am solo boo xam ne jeunes yi. Mhm. suñu bëggee béy dañuy am problème bi. Mhm. ñun dañuy andi solution ci loolu. gis nañ ne jeunes problème mu formation aussi problème la ñoom ñi nga xam ne ñoo bëgg nekk ci wàllu mbéy di fa mhm. liggéey dañuy am problème formation ñu ne apporté nañ solution bi mooy gis nañ ne xale yi aussi suñu bëggee def euh, euh, pour def financement. parce que aménagement hydro agricole maanaam mbay moo xam ne euh, teguñu ko rek ci taw bi tawu maam yàlla bi. Euh, soo ko bëggee def dafa laaj ay investissement yu am solo te loolu financement yi ñaare jeunes yi duñ ko am. Mhm. ñun nag ci ñetti tànk yooyu dañ taxawee pour régler leen ñoom ñetti ñëpp ba nga xam ne jeunes su ñëwee su ñun du am problème accès au foncier du am problème accès au financement du am aussi accès euh, problème accès au à loolu ñu def. ñu génnee ñaari pàcc yi muy euh, formation ak leneen li da wax ci finan foncier bi nga xam ne tey jii dafa lëmbe nan la Prodac di jàppale ndaw yi ñu am li nga xam ne mooy suuf si. damay yëgal Sénégal ne ñun Prodac état Sénégal à travers les les mairies. Mhm. délibéré nañ au euh, profit de Prodac plus de trente mille hectare de terre maanaam fanweeri fukk euh, nu nga ko yooyee euh, junne fanweeri junne hectare suuf boo xam ne Prodac lañ ko jox. Mhm. te ñëpp xam nañ ne Prodac nekkul jaay suuf rôle am nekkul nekk def ko mairie di dagg suuf. Mhm. di joxe mais suuf bi dañ koy jox ñoo xam ne ñoom ñoo bëgg béy. waaye ban suuf lañ leen jox joxuñu leen nag suuf boo xam ne suñ leen ko joxee suñ demee tamit dañuy am problème bu financement pour mën a def ay aménagement ñun donc dañuy assurer aussi wu suuf boobu ba nga xam ne jëm wu foofu du am problème bu financement machine yi muy soxla ñu dañ koy andi euh, goutte à goutte yi ko war a yi nga xam ne koy soxla wala système de pompage yi station de pompage yi ñun dañ koy andi donc dañ leen di jox suuf boo xam ne daanaka financement amatu fa. en retour ñoom lan la joxe. ah déet ñoom tamit dinañ joxe nag dinañ calculer su ko defee ñoom loolu ñuy gagné foofu ñu am as tuut loo xam ne dañ koy comp mhm. dugal ko ci kafaga Prodac bi nga xam ne moo koy permettre moom mu mun a entretenir installation yooyu loolu la ñuy woowee redevance yoo xam ne dinañ ko calculer mhm. ba nga xam ne jeune bi dina gis ne su ko naroon génne li boppam day gën a cher voilà te du ci am benn risque ci moom mhm. plus nag euh, formation bi aussi duñ ko bàyyi dinañ ko encadrer boole ko ak ay technicien agricole boole ko ak ay ingénieur agronome yu nekk ci biir centre bi su ko defee ñu koy former di ko mën a encadrer ba nga xam ne moom dina mën a réussir mission am. Mm. ba li muy jaay sax li muy li muy li muy produire sax ñu mën ko appuyer sur la commercialisation parce que dina fekk ñu ni tamit. ñu woo keneen ku mel ne yow nga xam ne moom mbay intéressé wu ko mais transformer ay produits moo ko intéressé. Mm-hmm. mu mun a ñëw installé bi di ko transformer foofu di ko mën a jaay. Euh, tey jii est que am ngeen ay statistiques tey euh, ci li nga xam ne mooy ñi ngeen jot a liggéeyal. waaw léegi am nañu ay statistiques mais jàpp naa ne fu ñu toll nii suñu duggee ci statistique mën nañu xaw a juum tuuti. pourquoi ah, mhm. parce que ñëpp gis nañ ne programme bi xawoon na am tuuti retard parce que li may wax yëpp pour nga def ko il faut nga mettre en place installation yi nga xam ne moom lañ la sant infrastructure yi. Mhm. a dafa amoon tuuti retard. Mhm. ndax problème yi amoon no man bu mu fi falee ak léegi euh, bu ñu fa fi namee ak léegi tabe euh, at la toll ñu ngi jéem a nag pour relancer pour lii ma lay wax nii yëpp ñu mën ko mettre en place jeunes yi mën na ñëw liggéey mais ñëpp xam nañ ne tardement am na parce que ba fi may wax nii. benn ndag la ñu amagum mais ñu ngi góorgóorlu pour incha allah fii ak euh, déwén. Hmm. ñu mën a am au moins yeneen ñetti supplémentaire ñu wax ci euh, ba ngeen di soog a ñëw muy seen équipe bi euh, waxoon ngeen ne li ngeen nam mooy taxawal ay agropole ngir ndaw yi ci monde rural fan ngeen ci toll tey. waaw fi ñu ci toll mooy déjà maa ngi waxaat ne fusion bi. leer na lañ teg nañ ko vision bu baax la maa ngi ciy euh, euh, euh, kañaat encore une fois ci remercier président la République ñi nga xam ne ñoo fi précédé aussi mooy ñaari coordinateurs yi fi passé ñoom tamit am na nañu leen jukkal parce que mettre nañ en place le dispositif pour pouvoir faire ça waaye financement bi tamit ñu gërëm président parce que ñaari financement am nañ ko lu toll ci plus de quatre vingt milliards pour pouvoir mettre en place dak yooyu mais nag gis nañ ne tardement amoon na loolu lañ ko nangu effectivement amoon na tardement li ci am solo tey mooy ñu constaté ne fu mu nii benn dag moo fi baaxagum moo fi taxawagum muy dagu CFA. mais ñun nag li ci am solo mooy depuis at biñ ci nekkee ba léegi am na ay jéego yu am solo yoo xam ne def nañ ko fi ba nga xam ne jàpp nañ ne fii ak ay dix mois ci kanam dinañu am yeneen ñetti dag supplémentaire déjà Kër Momar Sarr dafa ñoo ko relancé depuis le mois d'août 2019 instant bi pare na ñu ngi koy waaj a inauguré Kër ñu ñëw dara amu fa commencé nañ dag bi jàpp nañ ne fii ak juróom-benn weer dag bi dina pare. sàngal Sangalkam bi nga xam ne jege nañu loolu tamit yàgg nañ ko dara mus fa am tey soo fa demee gis nga fa ay engins yi fa taxaw ñu commencé dal bi donc jàpp nañ ne ci at benn dag lañ fekkoon mu taxaw mais ñetti commencé nañ ko te njott nañ ne fii fukki weer dinañu pare donc dinañ am ñeent date fii ay quelque temps yeneen ñeent dag yi nga xam ne aussi moo nekk dag yi nga xam ne banque islamique de développement moo ñu ci jàppale muy Fafakuru muy Buleel muy ñambaatu ak euh, euh, dag bi nekk euh, Linguère muy Dodji boobu aussi njortu nañ ne peut-être fii ak ay at mi di jeex travaux wala ñu lancer marché yi nga xam ne moom la ñu war a def travaux yi ngeen woowoon secteur privé tamit ci seen liggéey ndax euh, woote gi mujjee naa a am rôle boo xam ne euh, mooy mettre en place des infrastructures loolu nag suñu feewu ne état bi moom mooy état day en place des infrastructures mhm. pour après le donner au privé mais quel privé ñun suñu cible jeunes yi la mais jàpp nañ ne en dehors de effort yooyu état bi def war nañu mën a woo Massamba et Mademba bi nga xam ne ñoom am nañu ay moyens investir ci agriculture ñu woo leen permettre leen ñu mun a am ay suuf boo xam ne suufu état bu ñu sécuriser la aussi donc mettre leen ko à la disposition ñu mun a liggéey loolu lañ ko xalaatee woon boobu sax bu ñu xalaat euh, toll bu ñu woon ci jamono contexte bi nga xam ne ñëpp gis nañ ne quand il faut ñu organiser la participation du secteur privé par rapport ak donc euh, ñu defoon ci ay xalaat ba defoon ci temps yële benn euh, ndaje mais après Covid 19 bi xaw a tardé mbir yi mais ñu ngi ci bu baax yaakaar nañ ne. sous peu d'autant plus que bi sax daf ko wone il faut ñu xalaat yoo xam ne secteur privé dina mën a am accès au foncier te duñu jël toolu ma sàmba duñu jël toolu ma demba te loolu yaakaar naa projet rek ko mën a solutionné parce que ñun am nañu trente mille hectares de terre yoo xam ne mën nañ ko mettre à la disposition ci ay conditions yoo xam ne duñu aliéné ay intérêt Sénégal mais ñoom tamit seen intérêt yi dinañ ko mën a jël en depuis amul benn dërëm bu dugg gum ci génne keesu état wala kenn ñëw duggaat ci keesu Prodac. Hmm. li ma fi liggéeyee mooy li ma fi fekk. fekk naa fi vingt neuf milliards. fekk hmm. naa fi vingt neuf milliards yu nekkoon ci keesu Prodac ñu war ci liggéey de première génération yi avec israélien Green Demin soo leen fàttalikoo mooy vingt neuf milliards yooyu nga déggoon ñu ne gars yi dañ ko détourné dañ ko yóbbu. loolu mosuñu ko yóbbu mu ngi fii moom la ñuy liggéeyee. Ah. la preuve loolu moo ñu permettre ñu sàmmkan projet de développement c' neuf milliards mooy euh, dag yi ma wax tànk bu jëm dóor yi. Mhm. Euh, rek ay Bulel Kaffrine nag ñoom ak Fafakuru Kolda. Mhm. loolu aussi dama ko fekk mais peut être def rek mooy jéem a accélérer encore rythme d' exécution travaux yi. ba mu gën a mu mel ni que dañoo am ay financement yu bees nekkee mosuñu sax am financement yu bees waaye yaakaar naa nag ñu ngi xaar ci état bi gannaaw bu ñu liggéeyee liggéey bu mel nii ñu yokk suñu financement permettre ñu ñu mën a euh, def yeneen dag feneen mais aussi renforcer dagg yi ñu am parce aussi war nañ ko def. tey euh, njiitu réew mi sàkku na euh, lii di déclaration de patrimoine yow noo ko jàngatee. waa d' abord damay préciser ne déclaration de patrimoine tey suñ koy wax ci Sénégal maanaam képp ku ñu fal ci benn mbir boo xam ne xaalis bu bëri mu ngi fa. Mhm. ñu jox la occasion nga dugg li laa yor. ba pare soo koy génne nga ne li laa fa génne. Mhm. nit ñi mën a xayma bu ngay dugg ñaata nga yoroon ak bu ngay génne ñaata nga dese ñaata nga am. loolu je pense que président de la moom lañ ko amee lay njukkal. Mhm. loolu il ñu koy préciser d' loolu président moo tax mu am Sénégal parce que président Sénégal daan la yàgg na fi te daanaka lii bu fi am. mais jàpp ngeen ne lu war la. waaw lu war la moo tax ñu mhm. def ko. lu war la moo tax ñu def ko mais dañuy préciser ne président local moo koy maintenant nag euh, bëkk démb gis nañu président mu waxaat encore une fois que ministres yi aussi nañuy respecter loi bi ñuy respecter réglementation bi loolu aussi lu war la président mu ngi koy rappeler léeg-léeg nit aussi day def ay quelques défaillances infraction day am parfois waaye jàpp ma ne yaafu suñu ministre bi waa am yuy nëbb ak yooyu parce que ay ministres yu responsable la ñu am ak ay directeur yaakaar naa loolu euh, incha allah ko dépassé sous peu. nga jiite conseil départemental tey jii euh, la ñu doon baaxantal maanaam di ko gis at gu nekk muy vacances citoyennes euh, ren boo mayul duñ ko am. ndax loolu dina am lu mu soppi ci lii di vacances yi. waaw li ñuy wax rek d'abord mooy ah, vacances citoyennes moom yaakaar naa dina am xanaa peut-être. dañuy changer ni ñu ko doon doxalee. Ah. Euh, peut-être euh, ni ñu ko doon organiser nga xam ne doon andi ay rassemblement ak yooyu par rapport ak contexte bi ñu nekk. Mhm. xam naa du ñàkk ko changer. Mhm. mais ko ci. Euh, jàpp ma ne dina am naka lañ koy organiser loolu je pense que dinaa bàyyi ministre bi. Mhm. du ñàkk euh, si ba si ñu jëm. dina ci communiquer ba ñu xam ban façon yi vacances citoyennes nañuy def ren. Pape Malick merci. waaw man maa lay remercier bu baax.